gi mbokki wéy euh, safu di bàyyi xel Galaxy TV euh, Sénégal asalaamaaleykum wa rahmatullah waxtu gi ñu taamu ngi faram-fàcce leen xibaar yi si kaaramay koccu daal dinay euh, jot sëkk dañu koy door rek tey ji si talaata ji yemoo ko ñaar fukki fan nag juróom si weeru juin doon bés bi nga xam daal nañ koy door si Sénégal gi fépp li nga xam ni mooy l'examen bu njëkk ci jàngale bi muy CFEE ñu gën ko xam di certificat fin d'études études élémentaires ak li nga xam ne mooy entrée en sixième daal nay door fépp ci Sénégal fii si diwaanu Tëngéej mbir yi ma ngay doxanam war a doxee daan nañuy doxantu dem si yenn centre yi fu si mel ne centre bu Immaculée Conception de Rufisque nga xam ni euh, école Mbaye Ndiir ak ñi jàngee si boobu lépp école di Immaculée ak ñi nga xam ne mooy élèves trois de fin yi ñoom fa la ñu amalee seen examen ñu teewlu kàddu yi euh, chef de centre ba du tuyoo euh, di wuyoo si turu Isaax Nguer. ngi fii commencé nañu centre bi moom 160. 161 euh, candidats 161 candidats yi 68 yo xamné ay 93 yo xam yi ay jigéen lañu ñëpp ñëw nañu ñëpp tew nañu école yi fi tew pour def ñett la école Immaculée Conception bi bu Mbay Ndiir ak école privée 3 dauphin waaw commencé nañu tel nañu commencé def nañu appel bi bi euh, heure bi desee 10 minutes xalé yëpp tew nañu ensuite démarré nañu sans difficulté léegi woon nañu xale yi ni ñuy démarré ubbi nañu copie ci seen kanam ensuite surveillant yi ñom ñëpp tew nañu amuñuy absence yi surveillant yi amuñu absence yi candidat yi yaakaar nañ ne donc euh, ren nii la daan demee daal bariwul ay changement parce que comme préparé nañ ko waxtaan nañ si xanaa benn épreuve boo xam ne bii dañ nañ ko doon tuddee épreuve boo xam ne bii facultative la léegi bu arabe bi mais léegi dañ ko tuddee épreuve optionnel euh, euh, optionnel maanaam xale bi nga xam ne bii léegi teel na ko tànn ne moom mooy kéem te ñu jàngal ko ko ñu ne kooku du ñëw ne dinaa dinaa def wala du ma def kooku moom daf koy def léegi nag mbay waa mbay ndiir ñëpp ne woon ñëpp xale yi ñu ngi dinañ ko dinañ ko def ñu ngi si moment bi nga xam ne mi mooy administrer kon ñun dañuy surveiller rek mais gisuñu si daal ay ay difficultés yoo xam ne yi xalaat nañ ne dina sonal xale yi parce yi ñu leen jox yëpp pratiquement mooy li ñu leen li ñu leen jàngal daal gisaguñu réaction yu mën na jóge si xale yi mi ngook dañuy desandi ba tey rek euh, ci wàllum examen yooyee gannaaw ba ñu bàyyee ko foofee euh, centre boobee di Immaculée Conception daan nañuy jubal sa école élémentaire Matar Seck foofu tamit yeneen ndongo ñu ngi fay amalub seen l'examen waaye njiital centre ba moom a ngay xam ne ne yi dee épreuve daal di jàpp nañu ne lu abordable la loo xam ne xale yi dinañ ci mën a wuyu ndax bokk na si li nga xam ne mooy seen programme ñuy jàng ba pare ñu teewlu ay euh, kàddu yi Alioune Sidibé di chef de centre bu école élémentaire Matar Seck Voilà, dès le premier jour euh, examen CFE, entrée en sixième, session 2024. Donc, commencer dans l'épreuve euh, depuis 8 heures. Comme vous le savez, ici avant dernière épreuve journée TV, moi, découverte du monde. Vous l'avez dit, on une pause 30 minutes. Après, on a fait épreuve optionnelle pour l'arabe. Donc, il faut que le sachiez. Le personnel était là, déjà avant 8 heures. Et les aussi, nous avons avant 8 heures, sauf deux ou trois cas. yu ñëw après huit mais avant huit dis dix tout le monde était en salle épreuve yi mën nañ jàpp ne yomb na ndaxte euh, programme bu ñu joxe programme euh, cm la jàpp naa ne aussi euh, maîtres yi si classe yi jàngal nañ ko en tout cas ñun suñu gis-gis yomb na naa lu mën a yomb si ñun mën na jafe si xale yi parce que ay xale lañ mais jàpp nañ ne jàng nañ ko parce que programme cm la waaw matériel yi aussi y a pas problème parce que jot nañ matériel bi depuis démb lépp lu aajoo si examen bi mooy euh, feuille de copie yi registre yi feuille de présence yi lépp jot nañ ko depuis démb donc amuñu benn problème si côté boobu. waaw si centre bi am nañ 203 candidats waaw si 203 candidats yooyu il n'y a que deux ñu absenté benn candidat officiel ak benn candidat libre donc présentement ren première journée bi de 201 candidats ñoo nekk di ñoo nekk di composé. dañuy desandi ba tey rek ci yooyu les examen ak lu bëri si ndongo yi nga xam ni ñu ngi amalub seen examen waaye tamit la nga xam ne mooy jafe-jafe yi sa gàllankoor mooy wàllum kayitub juddu ba tax na njiit yi daal si jël ay matuwaay lu toll si euh, juróom-ñaar fukki junni ndongo yoo xam ni seen kayitu juddu baaxul amuñu ko daal leen ñu bàyyi ñu daal di composé mu nekk lim boo xam daal nay yokk lool wuuteeg li nga xam ni moo amoon daaw ndax boo xoolee écart bi dox si diggante euh, lim bi nga xam ni am na ren ak bu daaw bi mi ngi toll si euh, ñetti ay junni ak lu toftal si ay ndongo yoo xam ni daan la bàyyi ñu euh, composé te amuñu li nga xam ni mooy euh, li nga xam ni mooy euh, kayitub juddu bu ñu jógee si loolu dañuy àddu si leneen su wàllum euh, dundugum réew mi ak li nga xam ne mooy gouvernement bu Sénégal mi nga xam ne daan na génnoon ni ki euh, démb di araftu ñi nga xam ne ñooy association meunier yu Sénégal yi xamoon ne ñoom dañu d'accord euh, benn yoon si wàññub mburu mi nga xam ne daan nañu koy wàññi bëgg def fanweer ñoom d'accord ñu si ba tax na gouvernement bi daal di génnoon ndiku démb ngir araftu leen daal di leen wax rek ne état bi daan nay taxaw tem ngir ñu daal di respecté yooyu les prix xam ne daan nañu koy fixé ñu teewlu kàddu yi secrétaire ministère gouvernement bu euh, Sénégal di àddu ci kàddu yi. waxtaan wi mi ngi démarré woon le trent avril jeex le juin muy juróom fukki fan yoo xam ne ni gouvernement bi mi ngi waxtaan ak ñim mu war a waxtaanal bu desee ñi nga xam ne bu dee ci ñi nga xam ne ni ñooy ñaxtu muy ñuy jaay fëriñ ñu seedeel peuple bi sédel askan bi premier ministre ci pas mo recevoir le 17 mai donc wer ak ay délégation bi ñom ñep ñang ci won Grand Moulin de Dakar nek Four du Khalif Nek, na ci FKS NMA Nek, na Olam Sedima ak MDS donc juróom-ñaar yi ngeen dégg ñuy wax kenn premier ministre le mo len mo dajé ak ñom wax len li gouvernement bi def le ministre industrie commerce le 19 juin moy laté ñuy décider li ñuy décider kon nak képp ko wax ne yef yi dañ na Grand Moulin de Dakar ndax xool na benn bateau boo xam ne ne moo beneen entreprise ñoo ko ànd dem jëndi ci même jaaykat bi dugal marchandise bi ci même bateau bi njëg ya wuute njëg ya wuute wuute goo xam ne ne jàpp nañ ne leerul ci bëtu gouvernement bi bu waxé waxee ba paré nak dañu bëgg léralal askan wi li ñom dañ né dañuy perte wayé ban demee xool ñetti weer yi wésu ñu dem xol seen facture yeen jox duwaan ñu xol ko bam mu réglé wu ñu xol né bu fekkone ne teggil nañ leen lepp luy douane wala lepp luy taxe buñ leen waree jox subvention du weesu ñeent fukki dërëm ñeent fukki ak juróom deux cent vingt cinq ci kuy wax ne mi ngi perte quatre mille francs te du luñ demi seeti feneen seeni facture lañ jël calculer jàpp ne ki nga xam ne ni nekkul moo ëpp doole waaye moom ma ngay dem jëndi lu loo xam ne ne xel nangu na ko ndax ban ko xoolee moog la ñuy jaay bitim réew ñoo yem kooku bu ñëwoon de la subvention gouvernement, d'où est 225 francs par sac. Lolota, nous avons subventionné l'un bon bon bon 1000 1500 francs. Nous avons d'accord l'ini, j'aime choupate, dem, ou biseni usine. Mm-hmm. Défaire, faire nan codan défaire. J'ai eu qu'un jeu du gouvernement. gannaaw yoyé kaddu di kaddu Ahmadou Alamine Lo di eh, ministre d'État nek tamit secrétaire bu gouvernement bu eh, Sénégal ñom ñi di mbootaay bu lemb yi nga xamni ne defal farine eh, fi ci diwaanu Sénégal daan nañuy xey ñom it gene sen communiqué ne waxtan daal nay dox digënté da ñu nangu di nga xamni moy ñëgup mburu mi daal di nek fanwer ñom ñi di association bi nga xamni moy mooy bu Sénégal daan nañu mujjii daal di d'accord gannaaw bu nga xamni gouvernement daal nay ngir araftu leen ci mbir moomee feneen fa ñu koy jeexalee rek mooy ci wàllum wér gu yaram ak pharmacie nationale bi nga xam ni mooy approvisionné wàllum garab yi fii ci Sénégal soo mayul dina dakkal boobu lépp liggéey ndaxte li nga xam ne mooy bor bu toll si ñaa fukk ak juróomi milliards suñu ay koppar bu ko état bu Sénégal ameel boobu lépp bor lu ko waral rek mooy subvention yi nga xam ni état daan na koy def si li nga xam ni mooy fajuta doo fay dara si lu soxol maladie tuberculose wàllum sibiru ak dialyse ak cancer ak yeneen maladie yu grave grave yooyee ba tax na euh, niki démb ci altine ji la syndicat yu ëmb mbootaay boobee taxaw di araftu ne soo mayewul dañu arrêté li nga xam ni mooy seen fournisseur bi nga xam ni moo la ñuy jox garab ñu gën ga xam di seen PNA moom dina dakkal li nga xam ne mooy garab gi muy jox li di pharmacie nationale d'approvisionnement ndax bor bu tolloog si ñaar fukk ak juróom milliards suñu ay koppar yi ko gouvernement bu Sénégal daal di amal bi rek jotaay xibaar yaa jëfal équipe technique ak service digital bu Galaxy TV Sénégal jàpp si mbir yi ba mu yemba xibaar na dikkaat tax yéen ëllëg bu benn waxtu jotee ba toftal ay simili gannaaw ba nga xam ni DJ Khalil ak ki nga xam ne mooy Sita Adja daan nañuy jeexal li nga xam ne mooy Galaxy Wanema lu mooy loolu way leen di safoo ay programme Galaxy TV Sénégal fanaanub jàmm di koy sàkku si yéen jërë ngeen